Banyak laminya dek yenn saay ñu laale man rek maa sekuñ bayante bul mere ba tàng wax ma looy rëccu suñu juboowe ma te doko ko waa gars yi ñu bàyyi xel yéen a ngi seen émission ëttu hip hop avec la lionne qui contrôle Baby Cool ay ñu ngi fii ci 5D TV euh, ma dalal fi nag benn artiste ah, il se nomme tout simplement PID mais xam ci kanam bu ñu ko nuyoo ba ci biir dinañu wax euh, turu PID lan lay signifier ma mel maa ngi lay dalal naka

mooy sama tour dëgg-dëgg. Mhm. Euh, dee bi moom mooy sama sant quoi. Ah, mais aussi am na beneen sens bi nga xam ne PID da koy da koy da koy signifier aussi. Mhm. parce que PID dafa nekk benn benn genre euh, pièce. bi nga ah, xamante ne dafay faral di nekk si ay machine nga xam ne pièce polyvalent la quoi. donc moom dafa bëri ay fonctions yi nga xamante ne. dafa dafa polyvalent te PID en tant man. comme artiste. Euh, PID bi aussi dafa bëri ay ay ay facettes c'est que c'est que yi da ngeen da ngeen xarañ parce que da ngeen jël seen tur ngeen déformé ko xam nga indi ci ay PID ay nangam sangam. Ah, en fait sa tur nga jël après nga ëlbati daal di koy def PID. bon waaw noonu la demee. sama ah, tur la quoi. yow bi nga bi nga commencé hip hop Galsen nekk ci mm-hmm. game bi kan moo la influencé ci hip hopeurs yi euh, mun naa ne que ce soit mu nekk Galsen wala mu nekk en tant que euh, jeune war a def leneen hip hop moom li ma si li ma si motivé li ma si motivé mën naa ni bon euh, déjà dafa nekk sama musique préférée. ok yàgg a déglu hip hop. Mm-hmm. Euh, aussi am na yenn suñu yenn grand yi nga xam ne ñoo ñu yar yi nga xamante ne aussi dañ leen dañ ñëw màgg fekk leen ci. Mm-hmm. ñu siy nekk comme ñu mel ni ay ay ay ay ay mag si xam nga. ay genre grand yooyu nga xamante ne ñoom mën nañu wax ne ñoom ñoo ñu yar si hip hop mu nekk suñu musique préférée bi nga xamante ne. Mm-hmm. lañu a si ne yéen sa message. parce que tamit moo ko tax a jóg et tout. donc loolu dugal quoi ñëw jàllale suñu message parce que on a beaucoup de choses à dire parce que gis nañ yu dañuy gis yu bëree bëri day am yu bëri yoo xam ne ñëw suñu xel et tout mm-hmm. donc lu ñu war a mën a génnee partager ko ak jaam yi et pour ñu ñu déglu di jëriñu parce que xam nga plus particulièrement dañ dañ ko def ngir yeete quoi. ngir yeete ngir yeete. d' accord ayca bi ngay dugg ci game bi tey sa famille naka lañ ko accueillir parce que fii en général parents yi boo commencé di def rap rek automatiquement mm-hmm. dafa am fi ñu leen di collé dañ naan non hip-hopeurs yi ñi dañuy naan ñi dañuy tox ñi Euh, le fait que yow nga ñëw di game nekk ci game bi mu nekk loo xamante ne aussi euh, ñu bëri dañ ci faral di ci wax lu bëri mm-hmm. est-ce que parents yi bi ngay tàmbali amul lu ñu la waxoon wala si sa mbokk yi koo xamante ne na la est-ce def lii wala defal lii wala ñun dañ ñu encouragé ci li ngay def franchement moom sama côté yooyu yëpp amu ci quoi parce que bon man sama waa famille xam nañ ma bu baax xam nañ ça veut dire que yomb na quoi waaw yomb na trop parce que xam nañ ni man du ma nekk ma si dama ci dem am ci sama ful def ci lim ci war def tout donc lepp lu moy def rek dañ ci and ak ñom parce que xam nañ mo quoi xam nañ lu ma ci yëkëti xam nga moo tax amu amu ci benn ki nga xamante ne da naan déedéet. dafa naan déedéet mais dafa am lu ma jaaxal parce que ci sa neem tout le temps mi mooy franc parce que gis nañ ne bu ñu nee les mm. yi mm. euh, nga xamante ne yaa ngi def jéem nga jékki-jékki ñëw indi benn turu franc déjà loolu man bi ma bi ñu may boole yow pour ma invité la sax dafa maa tiital parce que dama ne non mais attends franc nu ñu ko invité ci plateau bi. Mm. ñu bëgg a xam lan ci lu mën a xam. waaw bon comme ni nga waxee bon bëri na ay bagage ku si nekk di si wax et mais franc bi li ko li ko li ko li ko andi. Mhm. boo xoolee ay jeux de mots la quoi parce que PID. ça veut dire que ay ay jeux de mots yi ñuy ay si hip hop quoi bokk si rap xam nga da la nga xamante ne maanaam day. day day andi ay werante quoi ah, kenn ku si nekk di wax xam nga ku si nekk ni mu koy jëlee aussi quoi mm-hmm, mm-hmm. déjà am na ñi nga xam ne dañu naan franc maçon comme comme comme xaalisu maçon xam nga am na ñi nga xam ne ñu ngi naan franc maçon illuminati xam nga yow ban moo ci sa franc maçon parce que exemple commencé naa jig ci plateau bi parce que <laughs> quand tu me dis ay franc maçon laa damay tiital ni nga ko waxee boo xoolee yow début sax man mënoon naan damay bàyyi gars yi kenn ku si nekk ak ni mu koy interprété nu koy nu koy tekkee et tout mais bon mm-hmm. comme que déjà coow li bëri na et tout moo tax xam nga faw moo leeralal gars yi ñu xam parce que PID man sama métier maçon la quoi. ah ok man maçon la maçon moom mooy sama métier bi nga xamante ne mooy sama métier carrément quoi. xam nga mm-hmm, mm-hmm. rap musique dama koy def parce que sama passion la. boo xoolee son boobu son nga xamante ne moom moo waral ñu naan ñu naan franc mm-hmm. dama ko génnee tuddee ko franc maçon parce que euh, dama si bëggoon wone. ki ma doon carrément quoi sama sama vrai métier parce que ñu bëri. dañ mooy gis ak sama sama comportement. ay ok ça veut dire que yow sa métier ngay exploité. ça n'a rien ak franc-maçonnerie bi ñuy wax na non sama métier la valoriser foofu noonu. Ah. en tant que maçon. d'accord mu doon li nga xamante ne bon maçon tey jii lépp lu ma am. Mhm. moom moo ma ko may xam nga. ci laa tax soxna xam nga ci laay faj sama soxla di si fajal ay seen soxla et tout donc mu nekk li nga xamante ne métier bu noble la. te et puis on a l'habitude de dire sax mhm. y a pas bien sûr te te li tax ma ne ma ne naa ko gën a fësal mhm. valoriser ko mooy boo xoolee souvent surtout Sénégal bi nekk nii. da seetlu ko ni mosoon dañu leen xaw a tuutal quoi. dafa jot instant bi nii. ñu ñu wane loolu wane lañu doon xam nga wane du ma ni du ma sax bëgg bëgg di wax. di wax fier quoi ay fier ay affaire yooyu parce que loolu la doon tey. métier la bi nga xamante ne bon métier gënu ko quoi xam nga métier bu noble la. xam nga et leen aussi. xam nga ñëw pour yor seen kàddu xam nga maanaam doon li nga xamante ne dama koy fësal. parce que mosoon xam nga dafa dafa jot gars jox leen cër quoi. xam nga pour pour pour wane li ma doon wane sama métier. moo waral man ma ñëw andi son boobu noonu tuddee ko franc-maçon. mu nekk maçon bu franc bi quoi. Ah, xam nga parce que. li gis ñu bëri souvent. Mhm. dañ koy nekk mais dañ si laaxatu. xam nga dañ ciy laaxatu et bi nga xamante yaa ngi ciy am di yóbbu sa kër je pense que nekkul loo xamante war nga ko mën a nëbatu. non non non jaru ko parce que tamit booy nëbatu da ngay lu bon quoi. xam nga booy def lu bon sur ce sur ce am ben benn ben na benn am na benn clip bi nga mm. jot def euh, parce que mm. jamono ji am na lu xew euh, ci ci dëkk bi ñëpp ngi ciy waxtaan mais sur ce rek dañuy dem avec euh, complicité de la régie ñu dem xooli clip bi après dellusiwaat ci plateau bi mun a yaatal ci bagage lab lab is recalled. la fas yéene wax ci corona bi wala boog Covid 19 mi lëmbe àdduna bi xanaa da ngeen a fàtte ni y a pas de fumée sans bu ne waraate kat yi ñi ngi wax nit te keetoñ yàlla corona bi conséquence la ci mbugalu borom bi Covid 19 benn séquence la dëgg la pour prévenir raxas loxo yi baax na. bay joxe loxo yi ngir moytu ko yu bax la bo doxul farata nga tok sa keur lu bax la bu mënul ñak solol masque bala genn bax na dañu jajeufal len ñom ñi faré ji walu régie bi ya, ba ngeen mu ñu ah, suivre actuellement ni yaangi ah, ci day tv ya. seen émission la batay hein ëtti hip hop avec Baby Cool euh, ñu dalal fii fii ID ah, donc mm. jot nañu seetaan li nga xamante ne moom moo clip bi ah, ngeen mm. wax ci ah, corona gis nañ ne jamono ji mom moo lëmbee àdduna bi eh, mm. parce que taxna na nit yi mënatuñu di liggéey ké mënatul dox yi sa soxla yeen en tant que jeune ngeen jël engagement pour dem def li nga xamante ne moom moo sensibilisation bi naka la demoon est-ce que metti won na est-ce que autorité municipale yi nga xamante ne ñoo nekk seen gox japp nañ ci liggéey bi et autres bon dèjà eh, mhm. comme ni nga waxee coronavirus bi ni lah. mhm. ah, mu ah. mhm. ni mu def ci àdduna bi ñëpp ñëpp ko gisandoo ñëpp ko ñëpp koy dundandoo quoi xam nga donc boo xoolee ñun en tant que artiste nekk ay porteur de voix ñun dama jàpp ne man sama wareef la bu lu mel noonu amee ñu génn xam nga def suñu sensibilisation def suñu participation quoi xam nga parce que tamit loolu suñu rôle la quoi parce que au moins même bu fekkente ne nit kese kese sax moo ñuy déglu suñu defee benn son jàllale suñu message xam nga sensibiliser au moins dina jëriñ kenn kooku noonu quoi xam nga donc moo tax ma jàpp dafa dafa jaaru coronavirus bi ak fu mu toll nga xam ne dafa lëmbee àdduna bi gis nañ ravage muy def xam nga di rey ay milliers de personnes et tout mhm. donc te ñaanuñu yàlla mu mu mu mu mu toll suñu dëkk bi comme comme lu mu toll seen dëkk yi quoi mhm, mhm. xam nga parce dañuy faral di tout le temps médecins yi dañuy wax am na yenn niveau ba nga xam ne ba fa yeggee atamuñ ko et tout quoi donc comme ni ñu koy waxee mo mo moo gën man jéem a faju sax laay wax quoi d'accord alors jéem a faju parce que wóorul wóorul ndax ni nga wër donc nga faju <laughs> nga nga fagaru avant avant ngay jéem c'est mieux quoi moo en tant que sensibilisation d'accord en tant que yéen porteur de voix ngène parce que quand on dit porteur de voix c'est les rappeurs les artistes ñi nga xamantene ne seen baat am na fu mu àgg fa nga xamantene mm. askan bi yeggu fa donc sur ce comme yéen def ngeen seen clip ba génnee ko est-ce que yéen ngi dox ci biir euh, koñ bi euh, jox gars yi euh, respecter aussi ni ñu koy mm. waxee distanciation sociale bi de masque bi utilisation gel yi saw bi est-ce que déjà yéen dugg ci askan bi di wax ak population bi parce que amna na ci ñoo xamante ne amaana fi nga mëna jotté jotee clip bi ñom sen bëtt yeggu fa mm-hmm. est-ce que yéen nga def def yu yeen en tant que des porteurs de voix dox ak sen tank dugg ci askan bi gën a ñaax askan bi parce que am ñoo xamante peut-être euh, ñu ngi dégg euh, virus bi mu ngi circulé mm-hmm. mais mu ñu ko gëm mais comme yeen boo leen waxee ñu déglu leen est-ce que yéen nga ci jéego bobu di def porte à porte comme des relais communautaires mm-hmm. mëna euh, di di mëna sensibiliser askan bi est-ce que ñu ngi ci ñu ngi ci déjà parce que boo xoolee comme ci son ci son yi la tàmbalee. xam nga def nañ ko aussi comme par exemple man ku mel ni man sama koñ déjà sama koñ bi ma dëkk muy Yaraax ay say montagne siis xam nga mhm. déjà euh, comme ni nga. parce que dafa mel ni sax dañu gis euh, comme maire yeeg yooyu. noonu déjà ñu ngi jàpp si combat bi waaw sama koñ bon suma maire aussi ñu ngi koy bigal loolu noonu parce que gis hmm. euh, ne dafa dañoo si xeex boobu noonu. xam nga man personnellement comme ni nga ko waxee man sama côté man. Hmm. personnellement man samay son lépp man maa ko defal sama bopp. maa génnee samay moyens bopp xam nga def li may def ak yenn gars yi si jàpp loolu la sax bu ñuy xeex si benn mbir mbir ku nekk da nga génne pour jàpp ci combat bi. noonu la demee boo xoolee comme ni nga question bi doon posé aussi sunu koñ aussi ñi ngi ci quoi mm-hmm. xam nga ci lépp ci luñ ci mën parce ku ci nekk bon da def li nga mën ba fi nga fi nga yem fi nga mën a yem rek quoi genre sunu koñ ñi ngi def déjà dajaloo nañ foofu noonu xam nga euh, au début dajale nañu euh, ay ay ay genre don ñenn ñi nga ah. xamante ne ay ay bonne volonté. ñu jàpp si xam nga ku ci nekk benn ku am 1000 francs joxe ku am 10 000 joxe ku am 5000 joxe. ko dajale suñu suñu koñ yaraax montagne si foofu noonu. tailleur yi nañ. xam nga waxtaan nañ ak ñëpp génn ay masque masque bi ma sol sànq ñoom ñoo ko defar. xam nga yenn plombier yi et tout defar nañ mhm. ñun ñu ngi si loolu quoi instant yi vraiment pour lépp ngir def fexe ba nga xam ne sensibiliser askan bi mën a gagné quoi te même si loolu sax parce que njëkk naa def benn son mhm. bi moo defar bi bi nga def clip bi sànq ni wane ko mais am na beneen son bi nga xam ne aussi def nañ ko en même temps ci loolu bi nga xam ne son bi waa quartier bi ñoom ñoo ko initié quoi président moom moom moo ci nekk ak beneen membre ba nga xamante ne ñu ngi ci biir ay série quoi donc ñun moom xeex bi ñu ngi ci ñu ngi ci kawam quoi def lu ñu mën pour mu bañ a dugg suñu dëkk quoi <laughs> déjà dañu des si temps bëriwul dañuy enchaîner mhm. question yi bëggoon naa xam mhm. say projet lan ngay waajal euh, parce que échange bi da ngeen nag stand by comme si si xeex corona lañ nekk xëy na du ñàkk am na nga xam te yaa ngi koy waajal pour que bu pandémie bi jeexee ngeen mën a mm. accélérer lan lay doon comme ay projet yu moom bon yaatu na ko ñu ngi waajal ay déjà projet soit bon je je album. Ah EP mixtape wala affaire yooyu ñun moom comme ni ma koy waxee PID dafa dafa dafa xam yoon bi soo a départ. quoi xam nga ñun dañu pare suñu lépp. ok soog a soog a ñëw dugg si génn bi parce que déjà bi mu si duggee yàggul le 25 janvier bii nii laa soog a. officialiser sama carrière ah, quoi le 25 janvier 2020 mhm. mais balaa balaa ñi siy dugg si aussi dafa fekk ñu pare parce que dañu yàgg a déglu hip hop mhm. yàgg ci gëstu xam nga dem ba xam ci liñ ci war a xam yëpp quoi <laughs> xam ci lañ war a jaar et tout donc bi soo dugg si quoi donc instant yi pare naa lépp fu mu nii daal sama sama sama manager xam nga sama sama sama yenn gars yi nga xam ne ñoom lay àndal mhm. lu ñu wax rek loolu la album EP wala lu mënti doon lu ñu wax rek loolu la ñu pare nañ aussi pour def ay show genre xam nga. ngi pare ay affaire yu am doole daal maanaam nga xamante ne peut du ñu wax lépp sax parce comme ni ñu koy waxee. dëgg la des fois ay dëxuñu quoi ba mbiri génn quoi mais ñu ngi pare ci yu bëree bëri. incha bëgg naa xam aussi est déjà am nga label bi nga xamante fa ngay produire wala da euh, war a génnee son dem fay wala fa am benn bi nga xam te daf la jël engagé la ngay liggéey ñoom wala amagul loolu. bon juste instant bii nii ñun ñooy def lépp defal lépp suñu bopp. suñu xaalis fay affaire yooyu quoi. bu ñu soxlaa dañuy dem si studio bu ñu neex. Mhm. li xam ne gis nañu ne peut seen qualité liggéey euh, jar yoon ñu dem. génne suñu xaalis fay enregistré. pour le moment loolu la quoi. pour le mhm. li ñu cooxaloon ci waxtu bi dafa daal mat sëkk ah, di leen wax comme que dèjà dañu toll ci période coronavirus ba léegi nii. Mhm. xam nga te instant maa ngi seetlu que ni gars yi ñu ngi commencé di di di wu quoi. Mhm. xam nga te moment bi nii yaakaar naa ni ci la war a mën a gën a dëgëral suñu taxawaay. donc xam nga gën a jël précaution yi geste barrière yi ñu appliqué ko. parce que mhm. tamit feebar bi c' est sérieux quoi. vraiment c' très sérieux. bu ñu bu ñu xoolee si dëkk yu ñu wër ñi nga xam ne dañu ëpp doole fuuf. ñoom la gën a sonal sax waaw ñaanuñu yàlla mu yegg ñu foofu noonu quoi. donc na mhm. gars yi bañ a wàccee seen garde. gën a gën a accéléré taxaw ku ci nekk na nga taxaw doon benn soldat ba nga xamante ne yow yaay fexe xeex ngir corona bañ a jaar sa côté quoi. bu bu kenn ku nekk defee. Mhm. Euh, yàlla mën na def. sutura quoi donc di wax loolu di leen wax aussi bon nañ xaar bagage yi mi ngi ñëw. xam nga PIA yi ñu ngi si woon quoi waaw sur 5D TV. ay na gars yi waaj quoi